li ñuy mettitlu la lu ñuy naqarul ndax gisoon ne ci loolu la ñuy dem moo tax bu ñuy waaju ubbi campagne électorale bi ma waxtaane woon ak sénégalais yi waaye tamit waxtaan surtout ak ñi nga xamante ne ñoo soobu ci ku kujeg politique bi ci euh, élection yi ñu nekk élection du lenn lu dul ku ne boo wooloo sa xam-xam gëm ne askan wi déggal na la nga mën a am dal goo xamante ne mën nga dem fu la neex waxtaan ci sénégalais yépp te ñu bàyyi sénégalais yi nag bu bés ba jotee ñu tànn tamit ci dal sénégalais yi yàgg nañoo wane ne que am nañ matug bu élection jotee ñu dem ci dal ci jàmm dem wote tànn ku leen neex teg leen fi nga xamante ne foofu la ñuy xëccoo que mu nekk présidence de la république wala mu nekk assemblée nationale wala mu nekk ci commune yi loolu nag homme politique yi responsable politique yi ñoo war a nekk à la hauteur de maturité peuple bi maanaam matug askan wi ñi nga xamante ne ñoo nag ci langue politique bi ñoo ko ñoo ci war a yëkkatiku ba egg ci fi nga xamante ne askan wi egg na ci waaye nag bu loolu weesoo dama yaakaar ne amul benn sénégalais boo xamante ne di nga wéet ndamoo ne dóor nga sa moroomu sénégalais ba gaañ ko wala sax ba def saafaan lu gën a lu gën a saafaano noonu kon ndam amul ci gaañ sa moroomu sénégalais même bu dee moom dafa gëm ne fii la bokk wala ci langue géey la bokk ñun ñëpp ay sénégalais lañu waaye ñun ñëpp tamit ci askan wi la ñuy dem waxtaane ji ak ñoom te gëm naa ne nag ñi am programme am lu ñu waxtaan ak askan gi pour convaincre leen dal gi mooy seen avantage waaye du xuloo yeeg xeex yeeg fitna ji bi loolu xewee woo naa ministre de la justice moom ma rendre compte ma ne ko na yoon def liggéeyam quelque que soit ñi nga xamante ne foofu la ñu féete seen responsabilité bu impliqué ci lu ñu def nii yoon na def liggéeyam waaye yoon bu dee def liggéeyam bu mu ci ànd ak benn pression na ci ànd ak dal def enquête ak dal ak tey bu mu wóor ko ne ku ñu toppee dara li nga def lañ la toppee waaye amul lenn loo xamante ne dañ la ko teg te defuloo ko mënuñoo nangu ci réew moo xam ne nit quel que soit fu mu bokk ak quel que soit ku mu àndal ak quel que soit lu mu yaakaar ne mooy dooleem jàpp na ne mën na jóg song sa moroom kenn ku nekk ci langu politique bi def ko loo xamante ne du mujjee fenn du mujjee fenn boobu mënul am ci réew mi ndax may wootewaat nag campagne bi des na ci ñi nga xamante ne ñoo nekk di battre campagne nañu def preuve de responsabilité nañu def preuve de responsabilité te xam ne Sénégal dafa am lenn loo xamante ne mooy suñu alal du or gi du pétrole gi du lenn lu doy suñu dal ak jàmm ji nga xamante ne moom la ñu xamee Sénégal yi te investisseurs yi ñu waxtaanal yépp que mu nekk Turquie wala mu nekk Arabie Saoudite li ñu leen jaay mooy Sénégal réew mu dal la te yenn saay sax balaa ñu leen koy wax ñoom ñoo koy souligner ne loolu dafay dalal seen xel na mën nañ jël seen koom dugal ko ci réew mi kon moom ñu nooy nangu échéance électorale ak bopp bu ti doon mu ànd ak fitna li ci des nag mooy woo naa ministre de l'intérieur ne ko mu def ay jéego ci sécurité convoi gën ci góorgóorlu gën a anticiper ci événement yi boo bu ko defee mu xool programme coalition yi fi ñu mën a ñàkk ñu bañ faa daje ñoom ñu liggéey seen liggéey ba loolu bañ faa am te na ci amaan ànd ak commandement territorial yëpp ak collaboration coopération directeur de campagne yi nga xamante ne ñoo nekk ci caravane liste yi di nekk di battre campagne ci réew mi